bilan bi boo xoolee si ñun ñun la gën a affecté duñ wax ni dafay apporter quelque chose mais dañoo gën a affecté ndax yaa a beaucoup de lenteur yi nga xamante ne am nañ ko si euh, boo xoolee récemment les manifestations yi fi jot a am soulèvement populaire boobu jot am euh, mooy montré que ni y a de failles yi nga xamante ne duñ ne am na li nga xamante ne defu ko fi il a fait beaucoup de choses mais ñun lu ñu doon attendre si moom du loolu noonu moo taxoon jox ko pouvoir bi parce que ñun dañoo xaar beaucoup de démocratie beaucoup de liberté aussi mu régler question des étudiants yi nga xamante ne ñoo ngi en master question des orientations des étudiants yi nga xamante ne boobu ba léegi mu ngi taxawaalu euh, boo xoolee récemment perte de vie humaine yi ñu ci am c'est récemment touché que jeunes rek ñoo wàcc sur le terrain doon def ay manifestation ñoom ñoo ñàkk seen bakkan cela veut dire que ici au Sénégal malgré peut-être que infrastructure yi ñu fiy tabax ñun emploi lañ gën a soxla ñun liggéey lañ gën a soxla waaw ndaxte balaa ngaa may nit ki mu dund jàngal ko nu ñuy nappee la tubaab bi wax te loolu laa jot a seetlu ci bilan bi malgré am na ay tali am na lu nekk mais dañoo war a penser à ce que les jeunes ñi nga xamante ne ñoo nekk si les écoles de formation si nekk si les universités de ce fait que bu ñu génnee ñu mën a am li nga xamante ne dañ si mën a jàpp loolu daal laa gis moo tax bilan bi du ma ne dafa des lu bari bilan bi dafa des lu bari au lieu may utiliser maîtriser mais dafa des. ngay jàng ba am sa master mais mooy loolu da ngay continuer di chemin ba kenn xamul liggéey manqué na fi étudiants yi dañuy jàng bay bëgg a dee plus galère bi ñu jot a dund genre yooyu noonu nga jàng ba am sa diplôme doo mën a faxe sax ba liggéey vraiment loolu moom ñu ngi koy déplorer bu baax. président daal li ñu ko mën a wax mu geesuwaat étudiants yi surtout jeunes yi jéem le a jàppale ci travail emploi mu gën koo yokk daal loolu daal lañ bëgg. de 2012 à maintenant ah instant yi gisuñ ci benn révolution suñ sañoon daal ñi nga xam ne ñoo ñëw après ñu jéem a changé euh, démarché changé ji régime ñu gën a xool ba xam après nu muy euh, nu ñuy doxalee après. en fait euh, pour le bilan comme liñ ci mën a wax mooy bilan bi mitigé wul je peux dire dafa insuffisance lañ ci am insuffisance parce que satisfaire ñu quoi qu'on puisse se dire satisfaire wul Sénégalais yëpp. on peut tout le monde satisfaire tout le monde mais waroon na mën a gën fi ñu ko doon xaar waroon na fa yegg cest à sur les plan peut-être je peux dire euh, au niveau des euh, de, de, de, des études supérieures ah au niveau euh, de l'entrepreneuriat foofu noonu def ci xaw a échec lu bëree bëri waaw ci sama gis-gis parce que comme ni ñu ko souligné boo xoolee soulèvement populaire bi fi amoon ci jamono ji ci manifestation yi certes y avait des gens yoo xamante ne ils étaient apolitiques am na ñoo xamante ne dañ doon défendre la nation sénégalaise parce que une nation on a une nation une nation boo xamante ne ni y la cohésion y la solidarité moo tax a jóg sénégalais yi et on aspire tous pour le développement développement boobu nag ci ñun ñëpp ku ci nekk da nga ko war a tàmbale ci sa bopp yaakaar naa ne loolu moo gënoon yokko tax ak jeu constitutionnel bi muy def cest à le fait de manipuler la constitution ah sans xam ne conséquence yi mu ko war a indil yaakaar naa ne loolu war na ci mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax le président de la république euh, bilan bi nag man personnellement bilan bi satisfaire wu ma waaw satisfaire ma ci côté yu bëree bëree bëree bëri à savoir politiquement moo xam socialement wala pédagogique non doyul parce que boo xoolee euh, maintenant gars yu bëree bëree bëree bëri bëri fii nii c'est-à-dire si tu pas su tu es un opposant boo nekkee opposant tu peux pas bénéficier de de de, de certains privilèges est-ce que yaa ngi comprendre donc ces privilèges là dañ ko waroon def pour pour les sénégalais nekkatul ay partis politiques pour sénégalais yëpp la ñëpp mën ci bénéficier wu pour man sama avis quoi loolu laa gën a yaakaar mais pas ay boo faree APR tu vas bénéficier de ça boo faree fee doomu bénéficier wu lii. loolu loolu moo nekkoon ko président boo xamante ne ni day day dafay doxal démocratie liberté d'expression tamit dafa des ci réew mim réew parce que boo waxee ñu jàpp tëj boo waxee ñu jàpp tëj am na ñoo xamante ne ni wala da ngay doon ab kilifa far ñu wax la ndombal tànk nga ragal a wax dëgg parce que da nga far fenn et que loolu noonu la ñu war a éviter c'est-à-dire dëgg moo jëkk moo mujj qu'on se dise la vérité le président de la république ñi koy ministres yi dañ ko wax dëgg parce que on a on des ministres yoo xamante ne su ñu génnee li ñu lay wax mooy ñemew ma wax lii ñemew ma wax lii parce que su ma ko waxee damay perte su ma ko waxee damay def nii su ma ko waxee damay def nii kon ñooñu luñ Sénégal Macky Sall la ñuy liggéeyal et que Macky Sall li muy liggéeyal mooy nan lay def ba maintenir boppam au sein du pouvoir on n'a pas besoin de ça. maa ngi leen di saluer d'abord di wax ne xaj na depuis neuf ans bon. président bi def na am na lu bari nag loo xamante ni dafa des man li ma mën a jàpp parce que bien vrai que ne am na lu mu def lu baax mais des na lu bare bare ba da ko war a def surtout ci côté bi nekkee nii côté éducatif bi laay waxee man soo xoolee parce que métti na trop da ngay gis jeunes yoo xamante ni dañuy jàng ba pare sax te ñu liggéey parce que am naa ci ay sama collègues yu bari yoo xamante nii d'ailleurs def nañ seen ay master 2 mënuñu def nañ master 2 amuñ ñu leen euh, téye pour ñu def seen soutenance yooyu yëpp ña ngi fi amuñu ay sujet euh, te loolu yëpp dafa war a loolu yëpp ci rôle état la mën nañ ne te am na yu bari dafa manqué Sénégal da xam nañ ko ñun ñëpp jeunes yi bëgg a liggéey bari na ñoo xamante ne amuñu liggéey euh, bien vrai que am na loo xamante ne am na amélioration yoo xamante ne def na ko ci njaar mi surtout taay fi marito nekkoon ak logement yi fi jotoon na am mais ba tey des na daal. su ci li ci mel ni affaire bon comme li fi xew li fi jot a xew lépp ñun gis nañ ko am na yu bari état bi war na cee gën a veiller xam ne situation bi ñu koy fal aussi pour mu ne fi pour dimle doomu aadama yi la mais aussi dafa am benn côté boo xam ne boo xoolee daal des na lu bari bari daal bon en fait euh, su ci côté économie bi bon laa moom ñun li fi nekk itam gis nan ko mais li nga mel ni li nga xam ne affaire jaam bi moom. état bi war na cee gën a war na cee gën a dooleel étudiants yi affaire entreprise yi pour étudiants yi ku jàng ba pare mën a <coughs> mën a am liggéey parce que da nga gis ñoo xamante ni dañuy jàng ba pare duñ am liggéey da nga leen di gis yéen liggéey am yéen liggéey nuy nekk sax comme la fois passée nga gis kuy dawal seret mu am na master de am na licence ba pare loolu lépp état bi da cee war a liggéey te di durant neuf mois yëpp jeunes yi dese nañu centre seen ci nguuru Macky Sall bi pour ñu waxante dëgg durant neuf ans yëpp am na ñoo xamante ni junior en sentir ñu seen bopp quoi bon état bi nag war na gën a góorgóorlu foofu ci li ci li ko dese ci li ko dese ci nguur gi pour mu dugal jeunes yi ci liggéey bi mais neuf ans yi jàll moom bon am na yu mu defar nag comme lu ci mel ni yenn euh, comme dëkkuwaay yi université dañ koy defaree nii am na loo xam ne moom am na amélioration mais nag des na des na ba tey. Ah, loolu moom nañ ko ci félicité parce que nag nit ki tam teewut gis na ni tam na ngi commencé di ay projet muy dugal Dakar nii début bi am na loo xamante ni doon na ko def xam ne daa état continuité la mais aussi am na lu bari daal lu des loo xamante ni war na cee gën a góorgóorlu lu ci mel ni affaire emploi moom pour jeunes yi lu ci état mën a góorgóorlu neuf ans yi am na lu mu ci def mais dafa des lu bëree bare bëri soit nag entourage am ñoo deful l war wala moom moom ci soit le président.